dangaa sàppee secteur primaire bi ginnaaw secteur primaire bi ñu dem seeti secteur secondaire bi ak yéenekaay bi di Vox Populi bi mu ne Moustapha Diop lañ ko dénkoon def cee salfaaña yoon ki jàpp ne li def moo di yoon moo di Moustapha Kane nekkoon fi président de conseil de surveillance de la SAPEX moo ngi ci yéenekaay bi di l'évidence moom nag dafa tekki ndombal tànkam bàyyi benn boo ko yaakaar la ko waral moom mooy dafa bañ Macky Sall présenté benn troisième mandat Moustapha Kane tënk ay kàddoom ci yéenekaay bi di l'évidence mu ne nit lu muy woote lu ne daf koy nuru ki niru turam dëgg moo di Cheikh Ba Messi ki amul satisfaction dëgg moo di Papa Diop njiital boo ko gis-gis yéenekaay bi di libération mu ne cour suprême daf koo téeméeri million ak ñeen fukk ki defagul ñeen fukk te def ñaar moo di président Macky Sall yéene bi di réew mi côté ñëw ñëw nag di ñaawlu ni nguur gi yore alalu sénégalais yi ginnaaw sud quotidien ñu dem seeti yéene kaay bi di vox populi moom nag dafa ñëw ci faat gen faat Bassirou Mbaye dép enseignant bu doon jàngale foofu ca njaafaat ga nekk ca Fatick yéene kaay bi ne jàngalekat yaa ngay yëglu ña ngay nas ay doxu ñaxtu ña ngay nas ay grève fépp ci Sénégal ci Sénégal googu la des dem seeti yéenekaay e bi di l'info mu ndaje mi nga xam ne doon na dox diggante premier ministre ak société civile bi yéenekaay bi dafa samp ab laaj mu ne ndax Amadou Ba moom mën naa làq ñi nga xam ne daal réew mi daf ko leen di épinglé ginnaaw yéenekaay bi di l'évidence ñu dem seeti yéenekaay bi di exclusif moom mu ne Amadou Ba dafa bokk ci coowal 94 milliards yi Amadou Ba dafa bokk ci scandale bi ki ñëpp doon tudd ci scandalu Adji Sarr bi moo di Bougane Gueye Dany boroom gëm sa bopp ñu fekk ci yéenekaay bi di Le Mandat yéenekaay bi de Bougane Gueye Dany dafa bëgg détrôner Macky Sall ki bëgg Macky Sall gañe dëgg moo di ministre de la justice bu Sénégal di Ismaïla Madior Fall du samay kàddu Vox Populi moo bind mu ne Ismaïla Madior Fall ma ngay baleel Macky Sall yoon wa Ismaïla Madior Fall tënk wax ji mu ne dañuy mobiliser fexe ba président Macky Sall 2024 2024 ak bëri ci arène politique bi ñu dem seeti bëri ci arène nationale bi ñu dem seeti yéenekaay bi di réew mi quotidien mi wax ci combat bi dox diggante Balla Gaye ak Boy Niang yéenekaay bi ne ginnaaw réew mi Boy Niang du mën a Balla Gaye wiiw sport dañ ko laloon digg sërëx ba pare humilier ko ba pare daan ko lu tolloog benn minute bu toftal juróom fukki seconde ak ñett mën a leen na ñëpp génn ndënd yi ñu fàq galañ ñu dukkat dem ña ngeen fekk fa Boy Niang kaang bi kang fóore bi fental ko wayu bees Boy Niang doomi dégul Boy Niang doomi géwal waroon naa neex baat ba yegg la tàgg wi